waxtu saytu jot na si responsable politique APR yi si gox bu mu doon waaye nag si Touba zone 7 ki nga xamante ni mooy Baye Diop bi muy def bilan si wàllub élection yi ñu génn di présidentielle yi premier point bi mu tàmbalee mooy kat ni na président Macky Sall tas assemblée nationale lam sa jublu mooy jàpp na ni ñiy représenté kuréel googu si diwaan bi mënewuñu jàpp na ni war na am changement de personnel politique te nag su booba moom de tàllal na loxoom ngir xeexal askanam mi ngi ko amal si ndajeem ak ay responsable damay lancé président Macky Sall na tas ensemble ba mu jeex takk mu falaat ñeneen ñu bokk ci gox bi wala ñu bokk ci région bi ñoo xam ne danañ mën a jariñ waa Touba liñ bëgg mais du caagee ni te ñooñu man ca man ña bëgg bokk ca laa bokk man ña bëgg ca laa bokk damaa bëgg lépp lu ñuy séddale ci département pour jàppale sama askan li ëpp ci li ma koy bëgg mooy damaa seet dëkk bii ñu baree bari dañu ne dañoo bañ Macky Sall bañ ñu Macky Sall dañu umpale président Macky Sall parce que ñi mu jiital ñoo ko doxalul yow jàpp ko gagné ndax man fa ma dëkk sama fa ma cosaanoo daa koo gagné. fii fii gagné wu ma mais naa ndax li ma fi am musuma ko fi am. ñi fal nag man bëgg na maa bokk comme ñëpp. ndax damaa gis loo xam ni teg naa ci sama bët te fas naa ko yéene indi Touba Guédé bilan moom la amal tënk ko si ay kayit bu sukkandikoo si ay kàddoom ne sax joge na lu tolloog juróomi million si ay dépenses yoo xamante ni moom moo ko amal si ay propre moyen donte sax mu ni am na ñu ko doon jàppale benn benn waaye nag moom li mu dépensé mat na ñett si ndimbal yu ni mel nee na kat gox bi mu fekk baax di Guédé li nekk si ginnaawam dafa takku loolu te fu nekk teg na fa tànkam suy dem dina yóbbaale ay jumtukaay boole ko koppar jàppale mboolem groupement chaque jour parcours ci campagne yépp waaye nag ni amoon na lu ko metti ci xolam ci biir campagne bi ndax kenn fulaalu ko woon kenn faydaalu ko woon gisul woon dara ci ay moyens waaye dafa jëloon lépp teg ci suuf ngir doxal di discipline de parti waaye tey jii nag loolee ko metti teg na ko ci taabal bi te bëgg na mu yem fi. si fii tey ndax comme dëkk bi dafa bari coow ku jóg na damay politique d'accord nañ ci loolu waaye nag na nga wane résultat bu wanee ne tax na yow politicien nga ndax dafa am lu bari lu aju ci nun moo tax ñuy tax ñuy wax ndax li tàmbalee sura ba ñëw Gédé Baxdaat Tundóodi Looyeen loolu Polle Alié loolu lépp ci nun la ba ci Baxdaat googu noo ngi ci ak nay de loolu lépp tey nag dañu bëgg nun ci suñu jëmmi bopp li nga xam ne moom lañ bëgg ci président président jàppale nu ci dafa bari lu aju ci dëkk bi ñu war cee mën a gis sunu bopp te gisuñu ci sunu bopp ndax day bare ñu ne ci son set bi moom lañ dugg lu bari loo xam ne dañuy wax ne moom moo fiy dugg bu fi duggee duñu ci gis suñu bopp dafa am ci yeneen loxo yu muy jaar doog a ñëw ci nun tey nag dañoo bëgg bis na ki tey dañoo bëgg lépp lu fiy ñëwati nañ koy joxe woo nit ñi di leen ko jox nañ woo nañ ñu woo yëkkati lañ ci am teg ko ci loxo loxo. nun waroon nañoo wax ci biir appel bi wax ne ci biir campagne bi wax ne lii lañ fi waroon am te amuñu ko waaye nit du caagi ni dalay liggéeyloo ba pare ngay liggéey ba pare di wax li la naqari. ndax li nga xam ne ni moom lañ fi waroon a moom lañ fare nun suñu jëmmi bopp li nga xam ne moom laa gis tey moom laa fare kayit yaa ngi ni wér mi ngi nekk 4 millions 600 treize mille yoo xam ne fare naa ko ci sa xam ne samay moyen bopp la te li ma ci am liñ ma ci jox matul un million kon samay moyen bopp laa doon demee ndax sak ngoon gu boobu bu fekkee ne ci problème café lañ doon sax ngoon gu ne danañ dem ci ñetti café café bu ne danañ fa joxe cinquante mille ak trente cinq bal. ñetteelu point bi mu ñëw bokk na si li nga xamante ni moo tax président Macky Sall ñàkk seen diwaan bii nee na gisul ni dan koo bañ wala sax ñu wan ko ginnaaw dafa jàpp ni askan wi politique am lañu gisagul seen bopp ndax gis na ni daal fii moom li mu tumuraanke dafa bare ndox wala courant donte sax mu ni lu toll ñaar fukki at si ginnaaw investiroon na ay mbir yu bare si gox bi waaye nag doole ma taw ko moom Baye Diop gis na ni daal moom buñ ko dimbalee dina changer donne bi si gox gox bi nga xamante ni am na ginnaaw loolu si biir Touba te nag population électorale bi moom kenn waxaalewu ko. mais jafe-jafe yi ci ëpp fii parce que fii ma nekk macha allah am na ndox am na courant mais def amaat fu bëri lu tot 4 kilomètres ci ginnaaw amul ndox amul courant jafe-jafe yu ëpp loolu lañ ñuy loolu fu ñu toll moom lañ ñuy ñaan. ndax njiitu réew mi bu bëggee ñu jàppale ko force mu jàppale nu li nga xam ne jotuñu ko mu jottali nu ko pour ñu mën koo askan fii man avant may dugg ci politique lu leen war a jëriñ dama leen koo jëriñ parce que fii 97 man maa njëkk jël sama xaalis lu mat ay 4 millions 500 ñoo dee ko rabino jox nit ñi ñuy naan beneen bi ci des yëkkati naa sama xaalis bopp jënd kër def ko àddee sëriñ Mbàkke sa na bu ma faatoo sama waa kër sax bu ñu ma ko doonoon na fa nekkal lislaam te boobu dugguma ci politique. waññu ko def fi jàkka def fi daara kon yaakaar naa bu ma wootee nit ñi war nañ maa wuy si parce que daanaa leen tere lu jiitu tey mbir mi ma ma man la parce que maa ko def parce li ma def defuñu ko. Baye Diop ni moom responsable la boo xamante ni ngi tàllal ñëpp loxo nee na député bi nga xamante moo fi nekk di Abdoulaye Seck Sadaga lim ko jiitoo si parti bi respect boobu jox na ko ko moom nag ñu fàttali ni responsable bu nekkoon si parti démocratique sénégalais la woon mi ngi ñëw après élection législative yi nekkat bi muy ñëw nag bu bale na lu bare indi gis si sax loolu feeñ na si élection présidentielle yi waaye nag jàpp na ni également bi mu ñëwee frange bu mag si benn bokk yaakaar si diwaan bii di Guédé ni kat jot na nag lépp lu responsable di am moom war na ko mën a am muy sàkku nag ñu tas assemblée bi te su boobaa moom candidat lay doon ngir teewal goxam